dal leen ak jàmm ci xibaar bi la yoon mën nañ ne kawteef daal di jibati foofale ca Kër Massar mën nañ ne nag li nga xam ne rek moom mooy manifestation yi fi passé woon ci ay biis Dakar dem dikk yi nga xam ne rek jotoon nañ ko taal bi la yoon mën nañ ne ki nga xam ne rek day wuyoo ci turu F Sané ñu daal di koy jàpp maanaam police teg loxo foofale ca diwaanu Kër masaar gannaaw nag ba muy amal li nga xam ne rek moom mooy ab ngénte foofale ca Kër masaar mbir mi ni mel nag mën nañ li ko waral du lenn lu dul rek ñun ñëpp ñoo gisandoo image yi nga xam ne rek jot naa daal di fees law ci li nga xam ne rek moom mooy réseaux sociaux yi ci ay biis Dakar dem dikk yu nga xam ne rek daal dinañ leen di yàq yàqate boo xam ne rek bu jéggi dayoo la gannaaw manifestation yi nga xam ne rek moom moo passé eh, ci noonu nag ñu daal di teg waa ji loxo nga xam ne mi ngi wuyee Touré F foofu la ca Kër Massar li ko waral nag ñu daal di koy soupçonné nekkat moom moomee loxoom daal nay bokk taqe eh, ci ñi nga xam ne rek ñoo doon def jëyee jinimel kon nag toppukaa bi ba tey mën nañ mi ngi wéy ci xal xale yi nga xam ne rek ñi ngi bokkoon ci li nga xam ne rek moom mooy manifestation yi nga xam ne moom moo passé woon le 16 bi nga xam ne rek moom la ñu génn ci procès bi nga xam ne rek moom moo soxaloon ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ak aji Sarr te nag ñu daal di mujj dàqandi li nga xam ne rek moom mooy procès boobee ba jëmmi jamono ci jamono yi ñu toll nii loolu nekk li gën a fees di leen di jaajëfal di leen di wax nag ngeen wéy di continuer di abonné